chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen site préféré donc tey ñu ngi dalal euh, monsieur Alioune muy président fondateur euh, think tank euh, Africa Jom Center. Mhm. monsieur Tine ñu ngi lay nuyu di la dalal. jërëjëf maa ngi leen di nuyu te di nuyu seen auditeurs yëpp waa Sénégal. ok te ñu euh, ñu ngi ànd ak aussi suñu naataango Amath Amath Diouf di journaliste Sénégal donc euh, monsieur Tine euh, sans plus tarder ñu dugg si peut-être avant ñu dugg on va parler un peu d'actualité politique. Mhm. mais on avant ñu dugg si actualité bi aussi buggoon nañu ñëw tuuti si cas de meurtre yi ñu noté ici au Sénégal un peu partout donc mhm. récemment la dame bi ñu ray fële au niveau de Pikine. donc mhm. te je sais <coughs> aussi donc lan nga xalaat ban. analyse nga mën a def situation euh, waaw temps yi c'est vrai bu ñuy xool yenn journaux yi euh, on peut être extrêmement inquiet par rapport ak euh, vraiment li ñuy gis ak li ñuy dégg mais loolu mooy perception c'est normal c'est c'est bu ñu xoolee une ville boo xam ne comme Dakar mu ngi màgg yu mel noonu mun na cee am te màggaayu Dakar màgg rek par rapport à la population màggaayu Dakar parce que Sénégal statut mu ngi changé bu métti Sénégal daanaka tey euh, ak ëllëg fi ñu ne nii euh, dafa nekk presque espèce sous statut émirat <laughs> à cause euh, ci alal ji nga xam ni muy ci gaz di pétrole alal ju bare bare bare macha allah loolu am na. malgré tout aussi euh, ndóol bi aussi bari na ñuy wax euh, problème mu inégalité sociale ak fracture yi dafa metti metti na metti boo xam ne loolu tamit dafa am ay jàngoro yoo xam ne daf koy jur jàngoro yu muy jur mooy violence mooy frustration mooy kii euh, te boo gisee meurtre bi mujj génn ay affaire ngénte la ñuy wax xam nga mm-hmm. loolu sax dafa mel ni kenn mënu koo xalaat nga nga am naqar ba nga xam ne di nga def lu lu demee noonu pour mun a ngénte rek totalement absurde euh, ci sama gis-gis daal euh, état bi war na am loo xam ni war na ko def pour aar citoyens yi lu lu am solo la mais it am na expérience yoo xam ne ñu ngi koy def pour que ñin ñi nga xam ne ñu ngi ci gox yi ak ci ville bi ànd ak état bi ñu seet nan lañuy ñuy aare seen bopp ku ci ne nekk ci boppam def ci xelam lii ñuy wax euh, kaaraange Sénégal sécurité sa problème la yow sénégalais ak foo munti dëkk ak gox boo munti nekk yéen naka ngeen di organiser woo pour ngeen yokk seen sécurité sécurité bi du gànnaay rek sécurité bi yar nit ñi la wax ak nit ñi yedd leen sécurité bi mooy aussi nit ñi ubbi seen bët. bu fekkee ne am na ki insécurité ñu seet ñoom ñëpp nan la ñuy def nan la ñuy wax nan la ñuy euh, agir ak état bi pour mu am une plus grande sécurité parce que insécurité bi du loolu rek yu gën a graaw yu gën a graaw mi ngi préparé te foofu nag la ñu war a def ay anticipation aussi bien fii ñu nekk ak euh, li nga xam ne mun na jóge ci bitim réew ñëw te mu ngi law euh, boo demee tey Bénin seen troupe yi nga xam ne ñu ngi ko yóbbu MINUSMA ñu ngi koy andi parce que terroristes yi léegi ñu ngi jógee ci désert bi di ñëw donc yooyu yëpp dañu war a seet nan lañ koy anticiper et te buñ ko anticiper ko ak ni ñu koy defaree tamit mooy une sécurité boo xam ni day nekk une sécurité collective sécurité boo xam ne ku nekk da ci dugal loxo parce que man. am na ay expérience yoo xam ne mu ngi am Pikine euh, yoo xam ne aussi américains yi ñu ngi ci liggéey ak sénégalais yi euh, amoon naa chance présider affaire boobu y avait quand même presque tout tout le personnel de sécurité yoo xam ne ñu ngi ci bokkoon ak ministre de l'intérieur armée baa nga fa woon police gendarmerie pompier ak euh, les naka lañ koy waxee ci sax kii def sécurité yi. a sp ñoom ñëpp ñu nga fa woon donc. Euh, mu nekk affaire boo xam ne lu am solo la war nañu tasaare wasaare waat travail boobu xam ngi ñu ngi koy def yéen a ngi wax fële mais man tey rek la ma sama voisin yi naan ah. donc euh, loolu laa amoon li koy wax quoi. ñu bëri tamit euh, ñu ngi wax ne takk der yi fii nii dafa doyul am na sax ay acteur acteurs politiques yu proposé ngir ñu déployer les forces armées donc yow loolu noonu yow lan moo ci sa gis-gis. waaw di def ay euh, xam nga man du ma expert bugguma bugguma ñoo di jël affaire yoo xam ne experts yi ñoo koy def euh, li nga xam ne la war a def mooy bare ngay def stratégie wala ngay déployer stratégie war nga def enquête bu baax seet lu ko waral yan la mën a ne ci ci yan gox lay am yan boo defee loolu ak récurrence bi peut-être que mun nga gën a am li nga xam ne li dina nekk espèce su euh, mapping bu problème mu sécurité yi à partir de ce moment là nag ngeen waxtaan ngeen ne yii jumtukaay la ñuy jël te yaakaar naa ne loolu peut-être police ak gendarmerie am nañ ko parce que xam nañu réew bu baax suñu suñu policiers yi ñu ñu xarañ lañ macha allah suñu policiers yi ëpp presque ci biir Nations Unies donc bu ñu xarañul woon du ñu dem ba foofu donc bu ñu leen utiliser effectivement yokk ko aussi baax na. Euh, li ñuy wax aussi euh, ñuy def ay patrouille baax na c'est toujours assez dissuasif aussi ñu leen di gis ñu dem di dellu si loolu sax dafay xaw a rassurer euh, ñin ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi fi mais e-, effectivement ci fii ñu toll ni ak àddina bi nu mu taxawee ak suñu sous-région bi nu mu taxawee problème de sécurité dafa war a nekk une priorité une priorité pour les pays de l'Afrique de l'Ouest muy sécurité interne ak muy sécurité externe ñu tabax ko defar ko loolu moom moo moo ñu mun a aar parce que euh, li nga xam ne yàlla may nañu ko xëy na am na ñoo xam ne ñoo ñu ko gën a mën a soxla. te ñu ngi koy lorñe te ñu ngi koy lorñe mm-hmm. te jaral na leen lu ne jaral na leen seen bakkan donc loolu war na tax tamit ñu xoolaat affaire yi bu baax. est-ce qu'il ne doit pas y avoir surtout une politique d'anticipation mooy moo gën ñuy xaar ba euh, affaire doog a ñëw ñuy doog a génn pour euh, soi-disant que ni rassurer les populations. loolu moom laa wax sax. en réalité euh, anticipation loolu moo tax sax li ngeen di def par pour man alerte la. alerte précoce mooy ñu naan ah lii de gis nañu tey ñu rey fii rey bu ñaaw ëllëg ñu ne gis nañ ci gox bi ñu rey ci façon rey te souvent ay xale lay doon sooy xool sax ay xale lay doon. donc bu fekkee ne alerte nañ état bi war na jël alerte bi bu baax ba pare apporter une réponse par rapport à la menace sur la sécurité des personnes sur la sécurité des biens je pense que bu alerte amee réponse rapide alerte précoce réponse rapide lañ koy lañ koy tegal donc li ñu def nii ñun ñëpp ak di wax euh, am nañ yaakaar ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi te yor kaaraange mi dégg nañ ñu bu baax mm-hmm. jooy yi ngay jooy jooyantu yi nga xam ne moom la tey Euh, citoyens yi di def pour que ñu wat ñu faj ko mm-hmm. saafara ko mm-hmm. euh, waxtaan ceeg nit ñi parce que loolu yëpp loolu am na solo ñu koy wax di ko répété waaw. ok jógee ci loolu ñu dugg ci politique par rapport ak euh, législative yi ñuy jublu euh, muy euh, en juillet donc depuis un moment on a remarqué bon wu certaines listes dont celle de Yewwi Askan Wi benn Bokk Yaakaar par manque de respect de parité li ñu wax donc mais aussi par rapport ak même on a vu la Sa Bopp ak yeneen liste yi ñuy rejeté à cause de du parrainage mais yow naka nga jàngatee un peu situation politique boobu ak élection. yi ñu waaye jublu. waaw pour man day ak ak ak ay élection yi nga xam ne mus naa ko seetaan. Mhm. nekk ci àdduna bi ak élection yi ma gis. li ñuy wax stade mooy phase initiale maanaam nga ñëw nga déposer sa candidature ñi wax la ni éligible nga wala mënoo éligible. Mhm. daanaka dañ koy woyafal ba nga xam ne parce que man li may gis ñu naan ah yow tegoo fii kii tegoo mais ay affaire yu ndaw. mi indi mbir moo xam ne mi jaaxal nañu mooy war nañu xoolaat suñu système. stade initial bi ngay déposer sa candidature dañ la war a accompagner dañ la war a waxal li nga xam ne doxul nga seet nan nga koy régulariser parce que stade boobu sax dëgg neex yàlla euh, ak fu mu munti ne day yomb mais musuma gis ci àdduna bi ñu am li ñuy wax un contentieux. préélectoral contentieux préélectoral boo xam ni ci danañ ko mën na mën na mën na nekk candidat wala mën na nekk candidat mu mel ni mbiru jeu olympique li ma gis Sénégal dafa ma dafa nekk ay mandarga yoo xam ne dafa ma jaaxal parce que di dem élection boo demee ci kii foo nekk ñu indi euh, kii nu mu tudd juriste yi code électoral moom rek la ñuy waxtaane bés bu ne foo dem ñu la article nangam article nangam article nangam article nangam maanaam ñun suñu suñu système bi dëkk dëkk doxul war nañu ko seetaat mbiru parrainage yi bi ñu pare présidentielle yi waroon nañu def benn évaluation boo xam ne acteur yépp ñooy bokk ñëw ñu ne lii dox na lii dux lii doxul waaye nan la ñuy def ba nga xam ne dañu koy def ba mu amélioré wu ba mu gën a baax pour démocratie bi ba pare di indi jàmm parce que loolu moo indi problème parce que élection léegi su fekkee ne deful loo ko bu baax day indi fitna yoo xam ne léeg-léeg day ñëw sax ba ci ay guerre civile wala mu indi la fitna yoo xam ne sax day màbbal gouvernement xam nga ay élection législative Mali en mai 2020 cour constitutionnelle bi joxe benn décision boo xam ne nit ñi d'accorduñ ko dafa màbbal cour constitutionnelle bi élection yi comme joxewuñu résultat yi mu mu màbbal assemblée nationale ñii nga xam ne ñooy militaires yi ci la ñu jël pouvoir bi te gis nga Mali tey mu ngi <laughs> jaaxal bopp ku ne donc il faut que yi ñun ñu defaat attention xoolaat suñu bopp ba pare waxtaan waxtaan boo xam ne Sénégal fi mu toll tey moo tax enjeu yi nga xam ne dañ koy def maanaam acteur politique yi ak leadership politique société civile ak média Sénégal mi ngi jóge statut boo xam ne dafa newoon réew moo xam ne dañ mën a wax ne dafa ndóol muy ñëw ci réew moo xam ne parce que dafay nekk émirat ci Sahel enjeu yi muy indi nag muy enjeu politique muy enjeu économique muy enjeu social muy enjeu géopolitique lépp ay yéeg ci kaw ndax suñu statut dafay yéeg ci kaw loolu bu fekkee ne am na ci réew nit ñi dañu war a waxtaan seet nan la ñuy fexee ba nga xam ne alal jooju bu ñëwee du yàq suñu stabilité du yàq li nga xam ne mooy jàmm bi nekk fii du yàq li nga xam ne mooy démocratie bi nekk fii parce que réew yi nga xam ne dañu am alal ju bëri boo jemee RDC nga xam ne mooy <laughs> réew boo xam ne sur le plan stratégique moo gën a kii ci àddina bi gis nga problème yi mu am boo jëlee Niger problème yi mu am tey bi ñuy wax Sahel bi wax Mali am na ay ressources yoo xam ni c'est ressource ressources d'énergie de demain il paraît que moo fa ëpp muy muy hydrogène yooyu yëpp ñi nga xam ne dañ ci teg seen bët te bokkuñu ci réew ma ñoo koy gën a soxla waa réew ma te lu ne jaral na leen ko donc ñun fi ñu tollu Sénégal ak stabilité bi ñu am ak jàmm ji nga xam ne moom la am ak suñu démocratie boo xam ne ak ñun liñ koy jooy yëpp boo demee feneen dañu naan yeena kon nag ñun ci suñu bopp war nañu am doxalin boo xam ne dina tax suñu jàmm ji nga xam ne am nañ ko suñu stabilité bi nga xam ne am nañ ko ak suñu démocratie bi bu ñu ko suuxatee bu mu jëm kanam mu mun a law dem feneen parce que ñooñu ñoom lañ yaakaar que li nga xam ne am nañ ko mu law. d'accord euh, mais li li jaaxal ñëpp mooy li xew ci élection yi kenn mësu ko gis yow acteur politique nga yàgg nga ci yàgg nga ci seen politique mais daanaka mu mun wax ne mosoo gis lu mel nii coow. contentieux électoral comme ni ko waxee nii pour yow lan moo waral coow lan moo tax situation bi ñu toll nii Sénégal bëri coow ci contentieux pré-électoral enjeu politique yi dafa yéeg léegi boo nekkee ci nguur gi nan ngay def ba nga xam ni di toog nan ngay def ba xam ni nit ñi duñu ñëw jël sa place nekk ci kujje gi léeg sax danga naan yow ci sa biir parti nan ngay def ba nga xam ni di nga toog bu fekkee ne yaa ngi analyser yooyu nga boo xoolee Sénégal quand même di nga ah ñii nga xam ne mën nañu ne président ku nekk daal dafa mel ni dañuy dañ dañ la yeewal ceen wala dafa en danga am épée de Damoclès kooku c'est pas sain ci biir suñu démocratie bi ni mu tëddee suñu démocratie bi tamit war naa góor góorgóorlu ba nga xam ne bu fekkee ne yoon day dox parce que yoon lu am solo la ci loo xam ne day réguler lii nga xam ne mooy violence bi nga xam ne mun na am ci société bi mun na am ci politique bi ñu fexe ba nga xam ne li ñuy wax deux poids deux mesures du am donc yooyu yëpp yàgg nañ ko wax ci biir démocratie te yooyu yëpp dañ ko war a waxtaane ci fii nga li nga xam ne moo nekk élection législative yi ti ñëw changement géopolitique bi ak changement statut Sénégal dañ ko war a waxtaane ba nga xam ne daañu daañu daañu ci dal problème bi nga xam ne tamit mooy problème mu pauvreté mooy problème mu inégalité nga xam ne alalu Sénégal ji dafa dem benn boor di gën a dem benn boor parce que melul woon nii ah ci temps wu <laughs> Senghor melul woon nii de temps wu Senghor même boo nekkee chauffeur mun nga am kër waaw gis nga kër fii ñu ne nii suñu cité assemblée bi ay chauffeur assemblée nationale ay euh, lu ñuy wax gardien ñoom ñëpp Senghor dafa defoon ba nga xam ne ñoom tamit dinañ bokk. ci alali réew mi di jëriñu ci alali réew mi ñi nga xam ne dañu new doole tey da jàngale sax wala nga toll même ci yéen ay niveau yu rëy sa dund metti donc yooyu yëpp bu fekkee ne yàlla nakkal nañu dañ fexe ba nga xam ni inégalité sociale ñu liggéey ba nga xam ne dina wàññeeku bu baax a baax a baax parce que boo gisee réew yi nga xam ne am nañu alal bu bari ba pare am guerre Nigéria ngi nii mu ëpp pétrole moo nekk sax premier pays d'Afrique mais lu tax mu am guerre inégalité sociale yooyu ci li ko indi ci la bokk. ok donc mais concrètement par rapport ak euh, rejet liste yooyu ñu noté temps yi donc dans la liste de Yewwi Askan Wi par euh, selon vous en tant que juriste est-ce que euh, Yewwi la sa liste à Dakar mën na bokkaat ci course bi donc mais aussi on a vu que celle de Benno Bokk Yaakaar aussi donc au niveau national gars ñu ngi naan dañ ko war a rejeter parce qu'ils n'ont pas respecté la parité donc selon vous en tant que juriste est-ce que am nañu possibilité de recours pour ñu mën a mën a nekkaat ci course bi. <laughs> linguiste la littéraire la waaye euh, di def droit de l'homme di waxtaan ak juriste nag bu baax a baax di jokkanteeg ñoom euh, xam nga fi ñu tollu mhm. su fekkee ne ñun nga xam ni quand même euh, think tank lañ mhm. dañu mugg waxtaan ak ñi nga xam ne ñëpp ci niveau boobu lañ ne mhm. duñ fi jóge ñu dañ war a xalaat nan lañ war a génne ci guuta gi nga xam ne dañ ci ne xam nga loolu guuta la bu fekkee ne yéen yéen ngi def ay élection pour éligibilité ñu ni ah parti bi nekk au pouvoir mënul ne opposition bi ëpp doole mënul ne diw yi mënul ne lii mënul ne nan lañ ci génne tey bu fekkee ne liir nga euh, Sénat communiqué bi mu def rek mm-hmm. danga naan kenn mënut a dem léegi ñi nga xam ne ñooy dogal en dernière instance ñoo nekk conseil constitutionnel te waxtu bii may wax ak yow normalement bu fekkoon ne yëf yi yomb na kon génne woon nañu bu yàgg ce qui veut dire yombul yombul sax ci ñoom dañu leen di déglu di leen di leen encourager di leen am nañ yaakaar ci ñoom lool mais est-ce que ñun li nga xam ne moom lañ leen di digal rek mhm. mooy ak lépp décision bu ñu mënti jël mhm. am na yoo xam ne war nañ koo seet bul jël décision boo xam ne bu ëllëgee si biir day indi fitna décision bu ñu mënti jël bu ñu indi décision boo xam ne ëllëgee si biir day indi fitna xam nga bi ñu nee troisième mandat conseil constitutionnel jël décision fitna fitna la indi. am na ñu ci dee. manifestation yi bari. donc il faut ñu éviter. loo xam ne day indi fitna ci contexte géopolitique ak boo xam ne bi ak contexte sous régional boo xam ne bi sécurité amu fi donc ak décision bu ñu mënti jël nañ fexe dafay dëgëral démocratie Sénégal. ok donc est-ce que. ak décision bu ñu mënti jël. ba baal ma wax li la dem ci sauvegarder intérêt supérieur de la nation. Mhm. ça c'est très important. ba pare décision bu ñu mënti jël war nañu seet assemblée nationale lu ëllëg ndegam dina méngoo ak li nga xam ni moom la sénégalais yi di xaar maanaam am na légitimité. Mhm. c'est très important am na représentativité c'est important am na inclusion mhm. et puis am na pluralité loolu yëpp. en dernière instance ci seen ñu gis-gis yooyu dañ ko war a xool war a bàyyee ko xel te kat du du lii nga xam ne mooy conseil constitutionnel rek moo ko war a xool sénégalais bu ne muy médias yi parce que médias yi jou dañu dañu xam sax rôle bu ñuy joué rôle bu am importance la ñuy joué ñii di société civile ñii di parti politique leadership politique bi lépp lu ñuy xool nañ seet ndax lii dina gaañ Sénégal wala da koy gën a defar ok donc par rapport toujours ak conseil constitutionnel bi nga soulevé sànq donc on avait jógoon nañ ci information que ni waroon na prononcé wu si week bi ñu ngi laam laame encore ndax tey li ñuy prononcé wala dans la semaine donc mais est-ce que par rapport ak li fi jot a xew yëpp donc euh, rejet liste yi Yewwi Askan Wi Benno Bokk Yaakaar donc euh, te liste yi définitif yi génnagul donc euh, te ñu ngi focc ci wéy béykat yi aussi euh, ils ont la possibilité après la sortie des des des listes de faire des instant bi mu prononcé wu en ce moment warul xaar ba liste yi génn muy doog a prononcé wu. c'est que conseil constitutionnel rëq-rëq yi am moom yëpp da ci da ci da koy da koy bàyyee xel waaye tamit day xool ci anton ci yi ñu gis xam nga conseil constitutionnel léeg-léeg boo jëlee ci exemple Kenya Kenya dañu nekkoon benn élection pré cour suprême la sax présidentielle bu metti ñu nekkoon ci ay xuloo nekkoon ci ay jafe-jafe ñoom ñu xool dal di élection yi ñu annulé ko xam ko kenn su ko gis <laughs> ko common loolu ñoo ko ñemee mais bañ ko defee ba pare juboo dafa am ci diggante opposition ak pouvoir ñu ànd di dem Malawi président ba fa nekkoon dafa sàcc élection yi dafa bëggoon sax après daq ki nga xam ne mooy président conseil constitutionnel bi société civile bi jàpp ci ñin ñi jàpp ci ñu bàyyi ko moo annulé élection yi ñu defaat ko bi ñu ko defaatee dañu ko gañe mu dem jàmm ñëwaat na may ñëw ci ci ci Malawi damay joxe ay exemple rek boo jëlee par exemple Bénin bi Kérékou demee Kérékou sax dafa buggoon def troisième mandat seen cour constitutionnel ni ko mënoo def troisième mandat bi mu demee Yayi Boni ñëw defar ba pare déposé ñu ni ko mënoo def troisième mandat loolu yaa am naa yaakaar ne sax moo tax ba nga xam ne tey Talon nee na moom deux mandats lay def dem yoonam conseil constitutionnel moo def loolu cour constitutionnelle bu du Niger aussi bi mu defee loolu ba pare Tandian daal di dissoudre assemblée nationale dissoudre conseil constitutionnel xam nga loolu amatul amatul fu mu mujjee coup d'état loolu tax tamit ñu ne boo demee looloo tax Issoufou ñemewul woon def aussi troisième mandat donc am na loo xam ne ñoom mën nañ ko faj pour dëgëral démocratie indi ay tradition yoo xam ne ak seen seen seen jurisprudence mu nekk ay tradition yu bees yoo xam ne réew mi day dem kanam mais nag situation politique bu jafe-jafe-jafe lañ am du situation politique boo xam ne yomb na waaw du situation politique bu yomb ak enjeu yi ma leen wax yépp tax na ba situation politique bi yomb kon nag képp koo xam ne mun nga ci yëkkati sa baat man surtout ñi nga xam ne kilifa diine yi kilifa diine yi dégg nañu sax ñi nga xam ne waa jàngu bi yëkkati nañ pour ni nañ daal na jàmm am ak décision muñ mënti jël nañ faxe ba nga xam ne dëgg-dëgg day indi jàmm day saxal jàmm dëgëral ko saxaral stabilité Sénégal dëgëral ko loolu vraiment ku ci ne war nga cee jàpp war nga cee waslu ak. d'accord mais ci jàmm jooj noonu falaay laay fa laay laay dolli ndax gis nañ fan yi génne nga benn communiqué di wax ne par rapport ak critères yi ñoom war nañ. prendre en compte le renforcement de la démocratie l'apaisement du climat social la pluralité à l'Assemblée nationale donc concrètement ndax jàppoo nag donc pour parvenir à cette situation là dama war a valider liste yi nga xamante ji mooy léegi deux grandes listes de la euh, Benno et Yewwi Askan Wi concrètement est-ce que nekku ne loolu mooy favoriser l'apaisement du climat social xam nga par respect pour les juges da leen di junjël rek da leen di respecter parce que ñoom ñuy doo ñëw di leen dicter ban décision la ñuy jël waaye mun nga leen ne ñun de euh, bëgg nañ bu ngeen jëlee décision mu gën a saxal jàmm bëgg nañ bu ngeen jëlee décision mu saxal démocratie saxal stabilité saxal aussi mu ngeen ko jël ko aussi teg ko ci intérêt supérieur de la nation yooyu yëpp ça va au-delà des textes cest à que aussi boo demee ba niveau boobu yow ci sa bopp da ngay créer jurisprudence dangay créer droit boo bu bees boo xam ne dafay jëmale réew mi kanam la plupart des des cours amul am na ay situation yoo xam ne day situation yu jafe mais dañuy génne seen réew ci ab guuta ñun nag li leen wax génne leen réew mi ci ab guuta teg ko ci yoon woo xam ne xam nga ñun jullit dañ naan siratal mustaqim <laughs> dañ ko teg ci yoon wu mel noonu yoon wu jub yoon wu baax yoonu jàmb yoonu salaam yoonu démocratie bu sax yoon boo xam ne day permettre que continuité état de droit dem xam nga loolu tamit dañuy tiital dañuy seet rek yi am parce que man dama fekkee ay crise yu bëri fekkee naa crise Guinée Bissau en pleine élection ñu pare élection yi militaires yi réunir c'était en 2005 ni duñu fii duñu fii duñu duñu def duñu bu ñu prononcer résultat yi dañuy jël dañuy jël nguur gi mais keroog le procureur général moo ñëw seet si ma fekk francophonie ne woon fa man ci wax francophonie yi laa bokkoon Pierre Buyoya ma ne ma doon diriger commission bi président bi mu ne ma àlli neel Pierre Buyoya bu mu dem parce que dañuy def coup d'état ma dem ci Pierre Buyoya wax ko mu ne man kat francophonie laa nekk mu ne ma munu ma ko munu ma munu baa toog foog ma dem ma daal di woo Doudou Wade bii fekk ma nga fa woon ma ne ko ah Doudou Wade procureur général de nee na ma militaires yi du dañuy tere ñu joxe résultat yi te bu ñu joxe résultat yi daañu def coup d'état mu ne ma Alioune woowal Ablaye Wade ma woo Ablaye Wade Ablaye Wade ni ma aha mu ne ma waaw ba ne ko ah def ko de wolof sax la wax mu ne ma xaaral ma woo Obasanjo Obasanjo ma nekkoon Union africaine mu wokk mu ñëw mu yónnee ministre des affaires étrangères am immédiatement ñu yónnee Gadio immédiatement aw Chambas moo fa nekkoon à l'époque Chambas il, il m'écoutait bien kii moo nekkoon aussi président CEDEAO du Tandja mu mu mu yónnee mais immédiatement ñu tenir réunion waxtaan mais noonu la ñu fexe ba nga xam ni coup d'état bi amul en en Guinée-Bissau maanaam ñun bu fekkee ne dañuy def alerte ba pare kilifa yi dégluñu li nga xam ne moom la ñu war a def ñu def ko mun na mun na mun na tax musiba du am. d'accord waaw loolu moo tax toujours. ñuy alerter di bind même bu ñuy caw wala di ñu dóor wala di ñu contester ñu tax ne daal li nga xam ne moom mooy cause bi nga xam ne moo tax ñu def ko ñu def ko. d'accord mais justement comme comme li nga mujjee wax sànq gis nañ ne bi bi communiqué bi génnee euh, parce que euh, am nañ ñi nga xam ne wax nañ ne ils souhaitent l'application stricte de la loi et l'apaisement du climat social bi nga wax sànq nii ça passe par euh, par la prise en compte de l'esprit de la loi donc yow. par rapport ak communiqué bi nga xam ne waa Aar Sénégal génne nañ ko di wax naan par exemple di dama bëgg loi bi ñu appliquer dans toute sa rigueur yow ban ban ban commentaire ngay def ci loolu noonu. commentaire bi booy gis nga li nga xam ne moom mooy euh, li li li li parti politique walla coalition de parti jàpp ne moom mooy lu baax ci moom bokkul ak li nga xam ne yow da ngay def régulation. nga xam ne intérêt général ngay xool nga xam ne aussi jàmmi réew mi ngay xool donc du mun a bokk suñu intérêt du mun a bokk suñu souci du mun a bokk donc mun naa leen comprendre ñoom ñu défendre seen intérêt défendre seen af seen seen boutique mun naa comprendre bu baax mais nag ci niveau bi nga xam ne lañ toll par rapport ak complexité situation bi ak li nga moo li mu mun a jur donc ñun foofu la ñuy xoole ëllëgu Sénégal fexe ba nga xam ni Sénégal dina am stabilité bu boobaa bu ñu nee intérêt général intérêt particulier dootul am donc loolu loolu rek moom te du ma xuloo ak ñoom parce que sama ay xarit lañ <laughs> ñëpp sama xarit lañ. ok dëgg dëgg damay waxtaan ak waxtaan nañoo ak man sax bu baax a baax. donc euh, du ñoom du ma polémiquer ak ñoom comprendre naa leen bu baax seen intérêt la ñuy défendre man intérêt général ak intérêt supérieur la nation ñun moom la ñuy xool ak jàmmi réew mi ëllëg. donc euh, waxtu yi mu ngi ñu xaw a euh, xooj tuuti pour bañ a yàggal donc euh, si pour ñu pour une dernière question concernant un la politique donc est-ce que yow si sa jàngat cohabitation war na mën a am fii si au Sénégal. ah cohabitation xam nga population yi ñoo koy décider bu ko population yi décider il faut que élite politique yi ñu seet naka la ñuy cohabiter de façon harmonieuse parce Sénégal ñëpp xaj nañ ci. xiiroo nga ba am entre opposition ak pouvoir il faut ñu waxtaan. Mm. gouverner réew mi ensemble. Mm. ku ci nekk ak pouvoir bi nga xam ne moom la la réew mi jox. Mm-hmm. parce que cohabitation du du du ñu li ñu lu ñuy décréter. Mm-hmm. réew mi moom mooy voté daal di jël carte yi daal di ko rebattre donc bu ko bu ñu ko defee il faut euh, ñi nga xam ne ñooy euh, leaders yi ñu am mat mataay boo xam ne dëgg-dëgg. dinañu def li nga xam ne moom lañ leen ñin ñi sant euh, déggoo ku ci nekk li li nga la li ñu la jox nga téye ko bu baax fexe ba nga xam ne harmonie day am donc man ragaluma bu ëllëgee si biir amee euh, vraiment euh, kii am ñu foog de dañuy am ay problème dugg na fii génn fii Sénégal am nañu une classe politique boo xam ne bu fekkee ne vraiment ay problème am na dinañ dinañ dinañ déggoo. d' accord maintenant comme instant yi gis nañ contentieux pré électoral bi fi mu nekk nii. donc yow jàppoo ne suñ jógee ci élection yi ci jàmm on doit revoir les textes revoir globalement l'organisation des élections au Sénégal afin que cette situation ne se reproduise plus fii. yi bu ñu ci jógee dañu war a am une évaluation boo xam ne évaluation collective la ñëpp ay bokk acteur yëpp ñu toog ñu seet naka la ñuy def xam ne lii dootu fi amati ba ilaa ilaa yow miti tiital na sénégalais yi indi na jaaxle. indi na stress bés bu nekk ñu ñu génne affaire bu bees ba yow dox sax dootoo xamante foo nekk donc tey bu fekkee ne tu es pessimiste horizon Sénégal li nga fay gis c'est sombre horizon bu ñuul ngay gis dëgg-dëgg boo xoolee xëccoo bi ni mu mel ci ay détails yoo xam ne c'est des détails mineurs ah da tiital Sénégal bu baax a baax a baax parce que dëgg-dëgg bu fekkoon ne gérer nañ ni ñu war a gérer euh, lii nga xam ni mooy problème mu éligibilité bi du ñu nekk dans une situation d'impasse or on est dans une situation d'impasse alors donc suñu situation politique boo xam ne ñu ngi ko am tey te élection commencé gul bu élection yi demee ba résultat yi ñëw nan lay mel kooku benn question la fii ak fukki weer ak juróom dañuy am élection présidentielle yi fii ak foofu nan la Sénégal dina ramel donc yooyu yëpp day nekk ay waxtaan yoo xam ne war nañu continuer di ko waxaat débat démocratique bi baax na ñu continuer débat démocratique bi ñit ñi indi say xalaat parce que démocratie débat rek moo koy faire avancer. surtout continuer ko ci biir assemblée aussi. continuer ko ci biir assemblée nationale. journalistes yi aussi di wax. société civile di wax. ñuy dajaloo ñun ñëpp di wax. fexe ba nga xam ni statut Sénégal bu bees bi nga am nan lañ koy accompagner ba nga xam ni ñun ci suñ bopp dinañu mën a digérer statut bu bees te ku nekk mun ko digérer. état bi mun ko digérer état bi su ko rawee rek. problème day am te dafa mel ni loolu mooy ngi ñëw homme politique yi aussi. su fekkee ne mënuñu ko digérer day indi ay fitna donc digérer statut Sénégal bu bees muy statut politique économique social ak géopolitique bu dafa nekk impératif catégorique ok donc euh, monsieur Tine hashtag We Are Ghana est-ce que tweeté nga ci waaw parce que xam nga euh, ñun suñu fondement ak li ñuy liggéey mhm. nit ki dafa am ay liberté yoo xam ne constitution bi moo ko may euh, boo jëlee lu ñuy wax la déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples moo ko may mooy liberté de conscience nga am sa liberté croyance ak sa gëm-gëm donc nit ki waruloo ko forcer ci ay cause yoo xam ne moom gëmu ko waaw xam nga xam nga cause boo gëmul ñu forcer la nga def ko dafa mel naa fekk nga donc waruñ cee forcer kenn protection des droits de l'homme mun nga ko def mun nga ko bañ a def mais man boo ko deful duma la ci mere waaw ak cause boo mënti am mun nga mun nga ci d'accord mun nga ci bañ a d'accord donc il faut que ñun ñi am pédagogie te France tey dafa am ay espèce extrémisme ci ci domaine bu mel noonu Sénégal am ci extrémisme aussi <laughs> gis nañ ko donc loolu day tax du kii li ñu kii mooy droits fondamentaux yi nga xam ne moom la euh, constitution yi may gànn gay moom la aussi convention internationale relative aux droits de l'homme may gànd gi mais dañ ko ko war a respecter bu baax kenn waru ko forcer quelle que soit la cause boo xam ne moom la ñu war a def ñu koy def au niveau du football ñu bàyyi ko mu def li nga xam ne loolu la ko conscience am may comme conscience am may ne ko ni ko moom du sol mayo boobu dëgg neex yàlla kenn waru ko ci pini kenn waru ko ci def leneen te ci loolu tamit bu fekkee ni ci loolu gëm-gëmam ci la ne ñun dañ ko ci jàppale. parce que kenn waru ko forcer waaw. ok euh, monsieur Tine ñu ngi si jeexantalu émission bi ah, ñu bàyyi la rek tàggatoo. waaw suma tàggatoo bi mooy euh, ñun ñun ñun ñëpp mu nekk politique mu nekk société civile mu nekk euh, média ak citoyen bu mu mënti doon ci jamono ji ñu ne. li nga xam ne moom lañu xalaat ne euh, moo gën pour indi jàmm euh, pour indi aussi li ñuy wax stabilité euh, di fexe ba nga xam ne dina yokk démocratie yokk koom-koom yokk li ñuy wax aussi cohésion nationale mhm. nañu ñaan mhm. di jëfe ba nga xam ne loolu moo am ci élection yi ok ñu ngi lay jaajëfal monsieur